Rojo TV jeudi 23 juillet 2020 ñu ñëw ak yéen ci yéen gaay daal koy commencé ak fi nga xam ne nii mooy sunu lamb sunu lamb tey ñëw à la une andil ñu ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux Balla Gaye Eumeu Sène Bombardier Garga Mbossé Sa Thiès Tapha Tine ak Boy Niang seen ñoom ñëpp nag seen combat taxaw yii Gaston taxawal ko yi des Pape Thialis euh, moo ko taxawal suñu lomb ñëw nag daal di wax day combat monté sans avance maanaam li coow li di bëri bëri yëpp xaalis génnagul ci boobu la yooyu la affiche yi nga xam ne ni annoncé nañ ko ci presse bi temps yi passé ba tey suñu lomb di ñu xamal fu coow loolu yëpp jógee nee na ñi nga xam ne ñooy entourage yu mbëri boobu ba léegi ñu taxaw di xaar gisaguñu xaalis ñoom ñoo génn nag daal di alerté li nga xam ne ni mooy presse bi Gaston li nga xam ne moo tëgg combat revanche moom nag ñëw na nee na moom nag euh, jox na benn montant ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux Balla tamit ci ci nga xam ne mooy Aziz Ndiaye fa la jaarale boobu lay xaalis mais Aziz tamit ñëw ba tey ci suñu lom moom nag di xamal ni ñoom ñi ngi xaar ba léegi tam jotaguñu dara Max Mbargane moom di cordinateur ci Leewtoo production génn na daal ni xamal ni Sa Garga moom jotaguñu seen avance mais combat Tapha Tine Boy boobu moom xaw na su lomb ba tey di dem jàll ak ki nga xam ne mooy Pape Diagne Seras Pape Diagne nag euh, ñëw ci combat ak euh, Tapha Tine di ko mettre en garde nee na su perdre li nga xam ne nii mooy combat am ak euh, Boy na jàpp ni que moom daal jeexal na ci làmb ba tey suñu lamb ànd ak ñun ci beneen mbër muy rëg-rëg mu ñëw ci Bécaye Mbaye ak euh, Lamine Samba pour laaj leen seen xalaat ci rëg-rëg mi taw am adversaire Bécaye nag moom li mu xamle mooy fii làmb ji kenn ragalu fi rëg-rëg peut-être kay fay laaj euh, cachet ak ñu fay la li ko jar moo fi nekk mais fii kenn ragalu fi rëg-rëg Lamine Samba moom na di présenté li nga xam émission bi nga xam ne mooy jongante ñëw na ci wax ci moom nee na li mu waxoon la lay dëggalaat euh, rëg-rëg mbëri dañ koo ragal parce mënul comprendre ñu laaj la ñu jox la mbër ngay laaj kache boo xam ne leer nañ la duñ ko duñ la ko fay loolu c'est juste euh, benn moyen pour wax ni du ma bëri ak moom mais de façon très polie la rek mais lépp rek mooy mbëri ñemewuñu Reug Reug dañuy daal di jóge foofu dem euh, fële ca dem fële ca Lops fekk fa Saliou euh, gàkku Saliou Gakou tam ñëw ba tey ci coowal Balla Gaye Gris Bordeaux ak retard yi nga xam ne gis nañ ko ci cachet yi ñoom nag ba tey ñu si wax Gaston Mbengue tam ñëw fa di jox ay assurance moom nee na nag euh, xaalis bi jox na ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux jot na benn partie mais ki nga xam ne nii mooy euh, Balla Gaye ba mu ko bëggee jox Aziz moo ko ne nag eh, ñoom yaa xam yaaxamtiw ñu mun nañ ko muñal ba ci kanam mais nag pour tamit xaalis dugg foog mbëri tamit daal di tijji compte fële ca benn banque bi nga xam ne sponsor la pour ñu mun fa jaarale xaalis bi ak transaction yi ñu dem foofu juge foofu dem fële ca record fekk fa ab Ndour Abou Ndour nag tey ñëw di ñu indil ay leeral ci combat wu rëg-rëg bi nga xam ne ni boobu léegi ñu ngi koy annoncé ak contrat bi ñu doon wax ni signé na ko fële ca GFM moom nag nee na loolu du contrat décharge rek la décharge boo xam ne ni genre reconnaissance de dette la pour wane ni xaaliskat dox na digganteem ak euh, waa GFM mais leneen li mu ci dollil mooy ba tey rëg-rëg 5 millions yooyu nga xam ne jox nañ ko ko moom da ko fa dafa préféré bàyyi ko fa ba am li nga xam ne mooy lu leer ci euh, waxtaan bi pour mën koo encaisser ba tey su abu abu nduur ñëw ak ñun ci Yékini Junior nee na est-ce que tey Yékini Junior combat mag Lac de Guiers nekk loo xam ne nii mooy li li fi li fi sës parce que euh, ki nga xam ne nii mooy jotu bu géejawaay bi moom moo nekk ma seul ancien adversaire boo xam ne amagul combat est-ce du kon bi war na mën a taxaw Abou Ndour dem seeti tey keneen benn mbër boo xam ne jaar na équipe nationale nekk na champion du Sénégal champion CEDEAO ak champion d'Afrique muy usine doole ñu gën ko xam ci Saliou Diomaye Diouf moom nag ñëw na si li nga xam ne mooy ay performance am ndax nee na nag kuy wër performance ak euh, liggéey bu rafet ak combat yu neex ci ki nga xam ne ni mooy Saliou Diomaye nga koy fekk parce que c'est la performance personnifiée kii di euh, Abdou bargi di ancien DTN moom nag euh, ñëw na nee na nag mbër la boo xam ne au plan tactique jàng na lu bëree bëri bëri bëri ci làmb ji loolu nag ba tey ñu jóge fa mu dem si Ambroise Sarr nekk coach équipe nationale nee na jafe na nga gis mbër bu mel ni Saliou Diomaye maanaam euh, ci wàllu yar ak euh, technique lépp la boole woon kii di Pakala di ancien capitaine équipe nationale tam ñëw na indi ay seede ci boobu le mbër nee na tey jii c'est un grand champion un exemple de discipline maanaam euh, champion bu mag la boo xam ne yaru moom ci moom la fekk baax ab Ndour tam ñëwaat ak ñun ba tey ci rëg-rëg ak euh, combat am nee na nag euh, ginnaaw GFM am na yeneen ñaari mbër yoo yeneen ñaari promoteur yoo xam ne ñi ngi courtiser ki nga xam ne Reug Reug mooy bëgg ko doxal ay combat ba tey ci guy gi ak euh, Reug Reug ak mu tam di ñu xamal ni GFM jotoon na ko proposé 35 ba quarante millions waaye nag ay nit ñoo fa doxe daal di wax ni Reug Reug kachem mun na gën a wàcc loolu si sinon GFM du si génn looloo waral 25 millions yooyu ñu ko proposé ñu dem ca Leewtoo point net fekk fa Marley Marley am ak combat ak euh, Nekorel Pape Sarr tëgg ko pour euh, déwén waaye nag euh, Marley ci su Leewtoo du ñu xamal ni ci ñaari défaite la jóge muy booy Bawol ak Diène Kairé muy laajte ndax tey combat am beeg Nekorel mun na fa jaaree relancé li nga xam ne ni mooy carrière am te bu surtout boo xoolee xam ni am na combat boo xam ne nii adversaire bi ñëpp ko ragal te redoutable na torop loolu lañ leen andiloon ci li gën a fës ci yéene kaay. salaamaaleykum mbokki leen jaajëfal comme ni ñu koy defee chaque jour dañuy ànd ak yéen seen revue de l'arène di ñëw ci jàngat bi anti sexe sama mag euh, Ndeye Coumba Fall Ndeye Coumba nuyu naa la. waaw Aïcha Faye yaayu Pathé yaayu Ñaga Cheikh Ahmed Niang comme ni nga ko waxee sama laa waaye des fois nag moom moom mooy loolu joxuma benn cër maa ngi lay fay Aïcha Faye daa léegi mba ñu ñëw ci waxtaan wi tey eh, ak ànd fekk eh, sunu lamb sunu tey ñëw ci ay affiche yu mag yoo xam ne ni taxaw na fi eh, diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye Bombardier Eumeu seen Tapha Tine ak Boy Niang 2 ak ki nga xam ne mooy Sa Thiès Garga Mbossé nee nag affiche na mais ba tey daal coow xaalis am na ci gisaguñu xaalis waaw Aïcha Faye comme ni nga ko waxee rek sunu lamb moom la xëyee tey ak aussi ki nga xam ne mooy observateur ñoom ñëpp nañ ñëw si avance yi ne ginnaaw bu ñu annoncé na grande affiche yi am pour saison prochaine ñoom na xëy nañ tey na dañoo xëy euh, tiñal nag promoteur yi nee nañu daal promoteur yi ginnaaw bu ñu taxawalee affiche yu mag yooyu nag kenn jotagu si avance ki nga xam ne mooy Gaston Mbengue nga xam ne mooy observateur parce que sunu laam moom euh, jox na ko as tuut euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Aziz Ndiaye jël na avance ki nga xam ne mooy Balla mais Aziz nag buñ ko laajee tamit si sunu laam wedd na loolu nee mu ñoom ba léegi ni ngi xaar avance yooyu nga xam ne Gaston da leen ko promettre buñ demee nag fee nga xam ne tamit toujours si avance yi observateur foofu nag Gaston dafa wax loo xam ni bokk ak lu mu wax ak fi nga xam ne mooy sunu laam parce que foofu nee na moom li ko daloon si combat Eumeu Sène ak ki nga xam ne mooy Yékini maanaam joxoon Eumeu seen avance dem ba si biir Eumeu Sène mu muñ te bëree ak ki nga xam ne moom mooy Yékini moo tax léegi nag nee na day préféré xaar ba nga ba nga xam ne ba mbajee ñëw mu soo ko jox avance si wàllu nag ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux ak Balla Gaye foofu nag Aziz nee na ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux moom ñamal na ko as tuut waaye nag ki nga xam ni mooy Balla Gaye nee daal euh, laaj na Aziz Aziz na ko mun nga tey avance ba si kanam ndax ñoom yàkkamtiwul avance yi waaw euh, ba tey ñu dem si euh, sunu lamb bi ak euh, ki nga xam ne ni mooy Reug Reug Reug Reug sunu lamb ñoo samp laaj tey nee nax est-ce que tey tey mbëru ragaluñu Reug Reug parce que ku ñu wax Reug Reug rek nga fexe noo ko contourner. waaw Aïcha est-ce que tamit Reug Reug ragal muñ na si am xëy na tamit lu leen di proposé xëy na moo leen di moo leen dul arrangé parce que tamit soo demee nag dem ay combat à risque parce que comme quoi qu'on puisse mbër boo xam ne déggagul muñal du neex a du neex a affronté ak Yékini situation moom la Yékini doon dund euh, donc xëy na moo tax mbër yi ñuy jël seen ay précaution yëpp seen matuwaay yëpp balaan tamit ñuy sóoru nag xam nga mbër boo xam ne mës na daanu kooku neex naa bëre mais koo xam ne mësugul dégg muñal nga bëgg ko sóoru rek moo tax dañuy laaj cachet boo xam ne c'est à la hauteur de l'adversaire mhm. moo tax mais gëw ma comme ni ko Bécaye waxee rek gëw ma ni mbër yi dañoo ragal ki nga xam ne moom mooy Reug Reug mais nag ki nga xam ne mooy euh, Malick Thiandou moom gisul lool nee na moom Reug Reug Lamine Samba nee na Reug euh, mbër yi kenn ragalu ko dañ ko ragal dañ ko ragal voilà kon boog nañu xaar boo xam ne xëy na boog fii ak ay fan yi ñëw dina décrocher incha allah benn combat waaw ba tey Ndeye ci ba tey ci Reug Reug parce que tey record xëy ak ñun ab Ndour andil ay leeral ci li nga xam ne ni euh, Reug Reug séq na ko ak euh, waa GFM nee na nag euh, ñiy wax contrat boobu ba léegi ndek du contrat décharge rek la buy def genre reconnaissance de dette ci valeur cinq 5 millions mais ba tey Reug Reug jëlul boobu xaalis parce que dafay taxaw ba xaar lu ko leer ci seen euh, négociation yooyu ndey waaw Aïcha nag combat boobu nag moom dafa xaw a doy waar trop xëy na boog GFM ni ñu si demee nañ si demee xëy na ak xol mhm. xam nga moo tax ak xadar xëy na moo tax situation bi yëpp ñoom ñu koy dund mais ki si mel ni Reug que yàgg na xëy na tamit staff am baax la am moo tax il n'a pas voulu mettre les charrues moo tax mu jël disposition yëpp xam nga kon làmb kii la ñuy wax contrat mhm. soo demee bay joxee décharge xëy na ñu yaakaar ne xëy na mër bi soxla na xaalis xam nga am instant bi nii ak situation dëkk bi mër boo proposé xaalis na ko teel li en mu tel la combat day jël mais yàlla dafa dimbale rek mu am staff bu baax boo xam ne xam nañu bu baax plan de carrière mër bi euh, moo tax bu waa GFM joxee benn décharge lebal leen euh, jox leen xaalis 5 millions ñoom parce ñoom sax jëluñu xaalis bi dañ a waaw Ndeye Comba dañuy dem euh, fee ca Leewtoo point net fekk fa ki nga xam ne mooy Marley Marley nag euh, nekk ci benn euh, mauvaise passe lañ ko mën a wax parce que ñu teg leen ñaari défaite ci kanamu Diène Kairé ak Boy Bawol mu ñëw tey tamit jël beneen adversaire boo xam ne tamit comme ni ñu koy waxee du adversaire bu tuuti muy nekku réel ñuy samp laaj fële ca Leewtoo point net est-ce que nekkul risque bu mu jël est-ce que tamit dina ci mën a relancer waat carrière am ci boobu combat. waaw Aïcha comme ni nga ko waxee rek parce que yaa bind papier boobu noonu.

jël combat boo xam day xaw a yemba mbaay wala boog na am yaakaar ni kii muy tasante dina ko daan mais nag moo tax na nga samp laaj ne est ce que jël euh, combat à risque mais dañu xaar rek ba jour combat ba arbitre bi sifflé daañu xam ne dam jël na risque wala jëlu risque Aïcha waaw euh, nekk ma ñu jeexal ak euh, usine doole Saliou Diomaye nekk koo xam ne nii euh, marqué na empreinte am fële ca ci simple bi marqué empreinte am ca équipe nationale jël ay trophées yu bëri lu si mel ni champion d' Afrique CEDEAO ak champion du Sénégal tey Abou indi andil ñu ko ci ay performance am jël ci Abdou Barji Ambroise Sarr ba ci Pakala mi nga xam ne nekkoon na ancien capitaine équipe nationale. waaw Aïcha loolu da siy baax na nuy fàttali nag ñu mel ni comme nag kam mooy usine doole xam soo déggee usine doole rek nga xam ni mbër bu mag la woon mm-hmm. bu mënoon bëree jaar équipe nationale jël drapeau chef di participer si édition drapeau chef de nekkoon plusieurs fois champion d'Afrique te nag day day baax nu koy fàttali même su fekkee ni sax bàyyiwul bëre mais day baax nuy xam kan mooy usine doole usine doole pratiquement moom ak comme genre ñoom luy coor ko parce que pratiquement kenn mm-hmm. ko mais mm-hmm. def nañu feu et flamme si li nga xam euh, su fekkee ni bàyyiwul bëre sax Moussa yu yàgg ko yor ki nga xam ne Abdou Badji tamit yàgg ko yor même su fekkee nekk tu directeur technique nu wax nag ay jololeem ne ne daal mbër boo xam ne même mbër bu mën a bëre la bu am doole moo tax mu tuddee woon boppam am discipline usine doole am discipline surtout nag ndax kenn ko dégg si ay affaire yu coow Aïcha waaw ndeyku mba li lañ andiloon ñi nga xam ne mooy internet yu suivre Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm di nuyu ñoom Cheikh Bass ñoom Moussa Dia di nuyu comme ni nga koy waxee ñoom Khady Rose ak ñoom Tuuti Yaay Sarr di nuyu ñëpp waa Asi Diagne di nuyu itam Babacar bu baax fa mu nekk ci ak yaay di ko waat lu bëri bëri waaye ndeyku mba tey damay souhaiter joyeux anniversaire sama xarit sama njëkke muy euh, Assou Diène bambara boobu sama bambara li ah di ko nuyu bu baax ñaareel <laughs> de di ko nuyu bu baax ah bàjjenu bàjjenu Njaga ak Paate di ko ñaanal eh, gudd fan ak wér surtout wér di ko ñaanal eh, borom kër bu baax bu sedd xolam incha allah ko ñaanal jàmm rek yàlla lafal ñu cat. amee amiin euh, Aïcha madame Niane ni nga ñaan yëpp moom yàlla na nangu ñaan yëpp waaye nag ni wax rek euh, maanaam euh, monsieur Niane sama kal boobu ne ko ñaareel moom de siy baax parce que xam nga benn moom baaxul dañu bëgg rek pour jigéen ñi génn jigéen yëpp dem parce que allah jigéen dañoo sakkoon lool te man mi tamit bëgg naa sax monsieur Niane def ma ñaareel <laughs> sotti seeg def seen yow garaawul la <laughs> donc Aïcha nag si kàddu yooyu leen tàggoo leen jox di daje suba incha mais balaa boobu mooy nuyu sama yaay mais sax nuyu sama doom Mohamed Diouf nuyu ki nga xam ne mooy astandine chéri Khadija Diall nuyu samay bourchou Mame Diarra Penda Rokhaya Rokhaya ak ki nga xam ne mooy Grand Fallou nuyu aussi euh, El Hadj Malick Tandine depuis Thiès mi turono euh, As Tandine depuis Italie kooku tamit maa ngi koy nuyu ko tuddee turono di ki nga xam di nuyu euh, ki nga xam ne mooy Abdou Guèye euh, Baye Fall jàmm gan depuis États-Unis aussi maa ngi koy nuyu nekk Papa Cité nuyu ki nga xam ne moom mooy jibi Bamba yaa ngi si biir Sophie Nour ak ki nga xam ne mooy Tabara ak Bébé Faye depuis France maa ngi di nuyu Aïcha Faye Ramos nuyu nañ la ba suba ak